salaam sama gars yi dal leen ak jàmm sama chaîne YouTube bi tey nag ci vidéo bi dama leen a bëggoon a jàngal nan ngeen di def ba nga xam ne seen waa kër kese ñoom ñoo mën a connecté même ñit ñi suñu amee code bi duñ ci mën a connecté parce que am na ñoo xam ne am na application yi ñu utiliser pour mën a xam code bi mais ak jumtukaay bi ma leen won nii même su amee code bi sax du mën a jëfandikoo ak seen wifi bi ñu dem ma woon leen nuñ koy defee. da ngeen di ñëw ngeen ubbi Google Chrome soo leen ubbee Google Chrome xaaral ma tëj lii xaaral ma recommencé ko léegi soo leen ubbee Google Chrome ci yoon li ngeen war a am soo leen ñëwee fii da ngeen di bind 192 point 168 point un point 1 lii ngeen di bind nga valide soo leen ko valider nag fii da ngeen di gis mu bind mot de mot de passe bi nag mi ngi sa ginnaaw wifi bi ñii abonné ci chaîne bi ñi yàgg seetaan samay vidéo xam nañ li may wax ci ginnaaw modem bi la nekk modem bi nag fekkee mas nga changé mot de passe bi lii mot de passe bi nekk ci ginnaaw dox fekkee mosoo koo changé mot de passe boobu ngay def fii ñun nag dañ koo mas a changé donc mot de boobu laay def fii ma def valide su ma defee lii nag ba pare damay ñëw fii bind réseau local ma bind foofu ma bës foofu léegi su ma ko bësee ci koñ bi fii di nga gis VLAN léegi fii nag dangay ñëw ci avancé bii foofu ngay bës soo leen amee ab seetlu man loolu laa def mooy que ne dama utiliser liste blanche léegi par défaut soo ñëwee nii lay mel nii su ko melee nag moom mooy amul list léegi nag ci liste blanche ngay def bii mooy bu mujj bi bul juum bës fii da ngay def liste blanche léegi soo defee liste blanche avant nga koy activer da ngay ñëw fii ba pare bii bu ko laal nii lay mel soo ñëwee man li ma ko activer woon moo taxoon mën na leen nuñ ko demaat fii parce que tey soo ñëwee fii nga bës appliquer muy yow di keneen kenn mënatul a connecté ci Wi-Fi bi parce que bokkoo ci liste bi nga xam ne moom la ñu wax ne ñoom ñoom mën na connecté ci wi bi donc fii bii doo ko laalugum nii nga koy bàyyee léegi soo ñëwee fii ci suuf liste bii nag moom sama list la léegi nag yow dinga gis benn bouton bu ñuy wax créer un nouveau élément fii léegi fa ngay bës nag léegi soo bësee ci première bi da lay wax tur bi. mooy turu nit ki nga war a dugal par exemple man fekkee man la ma bind Ousmane léegi mu ne la adresse mag lii nag moo ci ëpp solo adresse mag bi nan ngay def ba génne ci téléphone bi da ngay ñëw ci paramètre soo leen bëggee lu yomb mën ngeen ñëw ci barre de ba fekkee am na ko ngeen bës état état voilà léegi mooy état bi ci suuf ni ngeen bës ko soo leen ko bësee moo nekk nii. da ngeen gis mu bindale adresse fiche bi mi ngi nii lii nii nag ngay jël nga bind ko léegi soo ko bindee fii par exemple man ma joxe benn exemple du bind sans bos bëgguma ngeen gis sans bos waaye par exemple lim bind foofu noonu ngay bind waaye deux points yi bu ko bind chiffre rek ngay bind ak lettres yi par exemple fekkee lii la nii ab exemple ba may joxee la rek ah un six euh, sept F quatre-vingt-neuf voilà lii ab exemple ba ma joxee la du sama bos léegi soo defee nii ba pare nga def appliquer soo defee appliquer ba pare ba mu wóor ne la am na ku nekk ci biir ku mën a connecté su boobaaye nag ngay ñëw fii nga ne kii nga xam ne dugal naa ko ci list bi moom laa autorisé fii da ngay def appliquer ba pare. par exemple damay def appliqué su ma defee appliqué ba noppi ma dooree ñëwaat fii xaar ma def ko ak yéen sax ngeen gën a gis xaar bii mi ngi fii bii mi ngi fii léegi xaar ma def appliqué xam nga def naa appliqué léegi mu ngi ci biir list bi léegi xam naa ne su ma appliqué fii léegi su boobaay kii nekk ci list bi dana am autorisation pour connecter su boobaay nag laay def nii su ma defee liste blanche ma def appliquer su boobaay ñëpp duñu déconnecté bu mu des moom moom dina mën a connecté léegi nag nii lay def ba dugal famille bi yëpp la kenn ku nekk day jël téléphone ci biir kër gi képp koo xam ne am na téléphone ci biir kër gi rek day jël numéro am day jël numéro téléphone am mu bind turam ak adresse mag bi ci biir liste bi gis nga kii ma mujjee ajouté mi ngi nii nii lay def ba ajouté famille bi yëpp nga xam ne képp ku bokk ci liste bi léegi dootug mën a connecté ci wifi bi ci vidéo bii di ñëw nag dinaa leen won nan ngeen di def ba nga xam ne da ngeen di génne nit ci wifi bi ki nga xam ne bokk ci kër gi muy connecté ci wifi bi mu am mot de passe bi nan la ñuy def léegi ba nga xam ne dootu mën a connecté ci wifi bi jaa ngeen jëf sama gaay fii la ñuy yéemale vidéo bi fekkee vidéo bi amal na leen njëriñ maa ngi leen di ñaan ngeen abonné ngeen partage merci